ayca mu ngi noonu Kéba maa ngi lay nuyu di la bu ñaaw maa ngi lay fay. <laughs> ah bokk nga ci pël bu ñaaw. pël bu ñaaw maa ngi lay fay. <laughs> Ibrahima nee na bu ñuy waxtaan nga koy xool da koy neex. Ibrahima maa ngi lay xool léegi. waaw ah. nga yor jokkeel nga mus a yor jokkeel sax la ñuy wax mu bëree feek maama Lamine gëj a bëre mu ñëwaat ci làmb ba tey ñu koy gisaat ak yow muy préparé Ada Fass ma ñëw fekk leen saal. ngeen di préparer lu métti làmb ji nag coow li bëri woon na ndax ñàkk nag enjeu bi bëri woon na torop torop préparation bi wàccaay bi lan moo taxoon ngeen jël Ada Fass lan nga ñu si mën waaw ginnaaw euh, bi ma la nuyuwaatee pël bu rafet di nuyu encadrement bi yëpp di nuyu champion Fatick yëpp ku lim juum ñoom Mama ñoom Paul Maurice di nuyu tey ñoom Garmi Fall Baara mi fi jóge léegi Lay Patrice Zé ñëpp daal la nuyu di wax ne làmb amatul léegi choix Jokel day liggéey làmb mooy liggéeyam Ada Fass champion la luñ ko mën ci waxal dafa def ay preuve am làmb yaakaar ko làmb bëgg ko su fekkee ne adversaire yi dañ koy bañ ñu proposé ko Jokal Jokal da koy jël ndax moom mooy métier làmb nekkatul léegi ay palmarès su doon palmarès rek kenn du bëre kenn mais làmb tey affiche la ñu tëgg koo xam ne lii làmb la suñu simmeekoo ñoom ñaar ñu xam ne ay naataangoo nañ ñu bëre looloo tax ñu jël Ada Fass parce que Khadim Ndiaye numéro 2 lañ doon préparé làmb ji am problème après ñu indi Saalum Saalum làmb ji am problème. waaw mu yàqu après ñu indi Ada Fass ñu jël ko pour wan la rek ne ñun amuñu problème adversaire ndax Jokal soo xoolee combat yi muy bëri yëpp ay choc la hmm. waaw. macha allah mais ci biir làmb ci ngay préparé Jokal tey sa mbër encadré ko teg ko ci condition yu baax lan nga jàppoon si diggante moom ak Ada Fass jàppoon ne moom day daan. buñ jàppante làmb ji jeex ba dernier moment lan nga gis. Euh, xam nga benn proverbe si proverbe laa wax si séeréer ñu baal ma ko dañuy wax séeréer day wax sabin xaper tig bugo sabir waaw si définition mooy bugguma wax définition bi mais am kuy làmb dara am na loo bëgg et moom bi muy préparé à la phase dafa doon préparé comme yeneen combat mi pour am ndam. parce que Jokal jëlul Ada Fass pour dem daanu ci kon coono yi mu daj du ko daj dégg naa ci commentaire bu ne il n'est pas prêt physiquement loolu amul Yékini xool leen carrière am même corpulence que Tyson euh, kii euh, Jokal laa moon presque xoolal ñaata lutteur ñoo fi nekk cest à que il faut que ñoom ñu reconnaître ne tey mbër yi nekk ci région yi amuñu chance comme bi chance yi mbër yi nekk Dakar am parce que Dakar da ngay juddu koñ boo jàdd fekk fa saal tey soo demee si région yi dangay ngay wàññi saal yi fa nekk te matériel yi ñu am amuñu donc ñoom si lan nañ wéer seen entraînement mooy lan contact dem géej loolu lañ xam kon suñ ko jëlee dakaar indi ko mu ñëw di def ay performance dafa am la nga xam ne dañ ko ko war a encourager mais pas di naan ay woy préparé wul Jokal ñi ko fekk saal ñi ko doon seetaan entraînement xam nañ ni il s'est bien préparé làmb ji tey balaa ñu doon xam préparation am yàlla dogaloon ñu àgg fa nga xamante ni tey jàppante dina fa feeñ mais soo xoolee Ada Fass maturité la bëree Jokal moral bu damm la bëreel mooy maanaam am na lu xew digganteem ak Ada mu ñëw di def réglement de compte loolu moo ko daan moralement bi muy dugg si géew gi soo ko xoolee xam ne Jokal il est venu pour corriger Ada Fass te ñun. mer la fanaanoo waaw dafa fanaanoo mer et tere woon nañ ko ko mais nag décision finale bi moom la parce que moo xam ne ban pexe lay lal ba daan Ada xeex nañ ñoom ñaar. aada faas natt ko xam ne Jokal dafa dëggal boppam li ko li ko li ko aada naxe dane ko soo soo dëggalee sa bopp da ngay daw génn saat bi mu dëggal boppam aada ndax ko jël ko daan ko surtout li daloon li waaw li daloon tafaatin bi muy bëree ak Ama Balde dal tafaatin bi muy bëree ak Lac de yaa ngi dégg dal euh, fëgala bi muy bëree ak Tafa Tafa Gueye 2 dal Tafa mbër bi muy bëree ak Tafa Gueye 2 mais loolu moo dal moo dal diggante digganteem ak Arafas dafa topp signature ñëw ba bëri lu mu warul bëri ñu daan ko. ñëw waaw dafa bëri signature. Uh-huh. ñoom nee nañ dañoo daj ay coono ci stade bi dañ leen a téye une heure temps seen gàllaaju duggul genre fekkee nga ko wala dañ la ko wax. non man boobu maa ngi si embouteillage bi di ñëw parce que dama jàpp ne Jokal ak encadrement bi ko yor. soxlaatul keebaa di ñëw di taxaw di wax parce que tey su ma taxawee si bunt ñu ne dañ ma favoriser su ma fa taxawee su fa problème amee ñu ne dañ maa xeex parce que bul fàtte ne démb euh, amoon na contentieux du ma ne contentieux sax mais amoon na ay xëccoo sama diggante maak CNG bi ma taxawee di xeexal làmb yaa ngi dégg te ña fa nekkoon ñoo fa nekk ba tey kon donc du ma salir image yu CNG di ñëw di taxaw si bunt bi ñu naan non Kéba li mu doon xëccoog ñoom démb moo tax ñu tere ko mu dugg du ma salir aussi image yu CNG ñëw taxaw ci bunt bi ñu faciliteel euh, Jokal wala euh, Jokal pour mu dugg après ñu ne noo Kéba dafa jouer image am pour ñu dugal pour ñu dugal Jokal moo tax dama ko bàyyi mu jël ay responsabilité am ndax tey moom problème yi ñuy évoqué loolu la guy gi doon évoqué keroog ñëpp teg nañ ci seen bët ñaata mbër ñoom ñoo ko évoqué kon donc làmb moo baaxoo noonu yaa a trop de problème mais duñ ci wax parce que suñu position may ñu pour ñu taxaw di ci wax ndax jubloo guñu si loolu président Bira Sène moo ngi may seetaan dégg naa li mu def keroog ñëw fekk cumbukaay ne leen c'est pas normal ngeen téye cumbukaayu mbër mi mbër mi nekk ci biir làmb ji presque une heure de temps maa ngi ko ciy félicité mais na gën a yokk taxawaayam ci làmb surtout si genre bés yu mel nii na gën a jël ay responsabilité am ci làmb ndax làmb responsabilité la soo gisee ñu doon kaas bu njëkk di xeexal làmb parce que dañoo xam ne làmb yaa a trop d'injustice mais suñu position moo ñu permettratul pour ñu di ci wax parce que tey suñ ci waxee ñu ne Jokal daa daanu moo tax mu wax n'est-ce pas di profiter encore di lancer waat appel euh, Bira Sène na gracier Liss Ndiago parce que su fekkoon ne ñi damm chaise yëpp nañ aj Ada fas mi du bëri si tey ñaata lutteur ñoo ko fi def donc ay supporteurs am ñoo juum nañ xool beneen système bu ñuy def ba tey mën a canaliser les supporters pour ñu bañ a defati lu mel noonu nañ xool tey làmb lan moo ko wër ak lan moo tax violence bi di yokk si mbër yi la wala si yan façon supporter ñoo leen di topp wala promoteurs yi naka la ñuy tëggee combat mbaa yi ak ñan ñooy jënd billet yi pour ñëw supporter si mbër mi loolu aussi il faut ñu di saytu ko jàngat ko parce que tey su deen ay jamonoy Tyson jamonoy Yékini ay amateur ngay gis ñu yow seetaan si mais jamono ji ñan ñooy ñëw seetaan si man keroog j'ai été déçu bi ma taxaw si embouteillage bi façon jeunesse bi ma gis ñu taxaw di ñëw ci làmb mais c'est des personnes yoo xamante ni il faut les comprendre il faut les sensibiliser il faut ñu waxtaan ak ñoom il faut ñu xam leen leen leen làmb du sport u violence làmb du sport u bandi làmb du sport mafia parce que expression boobu gars yi dañ koy utiliser même Jokal sax da koy utiliser sama mafia bi mais mafia mooy lan mooy association buy def naka sudul noonu non c'est vrai kon du ay termes ya nga xamante ni dañ ko war a jox làmb tegginewul il faut ñu saytu ko xoolaat ko bu baax parce que su ñu demee ba làmb nar a nekk affaire mafia je pense que ni tey soo xoolee euh, am na am na benn équipe euh, les les hooligans dem nañ ba euh, pour ñu dem seetaani sport bi ñuy def sax problème la parce que y avait trop de violence au Mexique da ngay gis tey kenn ku ku yàqal kenn ñu dem ñu dem rey joueur boobu ñaata yoon yàgg na am mais làmb bu ñu fexe ba. violence boobu am ci yeneen dëkk yi ñu di ko indi Sénégal te moo ngi commencé si discours yi moo ngi commencé si jëfin yi. caméra surveillance yi tamit bu fekkee mu ngi dox. ñu dimbali ñu si bu dee doxul ñu defar ko. caméra surveillance yi du solution du solution. day tane de pourtant. non dina tane mais du solution la solution man je pense que ni il faut que seen CNG ñu jël seen responsabilité. avec les écuries créer benn agence de sécurité ba nga xamante ni ñoom ñooy jalonné ci kaw il faut ñu saytu xool tey naka la ñuy mën a encercler ak encadrer ces gosses là parce que suñ ko deful chaise dootul desati ci làmb ji. macha allah am na solo merci beaucoup ah. léegi nag ñu ñëw ci Jokkeel. tey nga téye sa mbër di def ci moom ci wàllu xaalis ci wàllu lépp daal gàllaaj mystique ba dara desul nga ngemb ko pour mu war a bëre ji mu paase yàlla xañ ko te ñu toog dégg euh, am ku ne passoir la maanaam moom la moom la xale yi di jànge yëg man boog ci ni ma ko déggee loolu tamit naka lañ koy jàngate defet yi la wala lan moo waral loolu. waaw xam nga communication dafa am solo. suñu papa ngañ ñoo ngi koy nuyu ndax man jomm naa tontonteeg moom ci téléphone wala may tontonteeg moom ci média parce que maag doomam ñoo bokkoon classe moom xam na moo bu baax mu ngi may seetaan mu may gis ni ma xamee man noonu laa ko xamee. xamante nañ bu baax a baax. mais très bien même mais c'est des choses à éviter parce que kàddu dafa war a rafet te et puis moom en tant que journaliste bu mag muy taxaw di joxe ay informations yoo xam ne amul. Jokal il n'a pas aligné six défaites li mu wax c'est grave opinion bi ñu xamul palmarès su Jokal dañ naan kon Jokal si six défaites la toog Jokal ci ay victoire la jóge dem ci contre Feugeula ak Maama Lamine ak Arafas la daanu mais mu bëgg a jël Jokal def ko. comme benn néew ba nga xamante ni deserewul dara lu dañ koy dem suuli mais xam nga expression dafa dafa dafa am solo mais moom ñaata mbër ñoo fi teg la ay neuf défaites lu tax du leen wax lool ñaata mbër ñoo fi toog ay douze ans daanuñu kenn lu tax du leen wax loolu lan mooy la problème problème bi man la wala problème bi Jokal la. wala ñoom dafa am la nga xamante ni man nañ ko dencal wala jokkeel nañ ko dencal wala man dama am problème ak ñoom man bañ naa ko ba damaa effacé wu sax si combat bi wàccuma sax si suuf kenn mayuma billet kenn joxuma laissez-passer je suis un amateur bu ñëw di dagg biyem dugg seetaan yaa ngi dégg. ko teg ci yoon rafetal nañ ko teg ci yoon ñu rafetal ko ñu xam ne taaru làmb mooy fair play Ada Fass man maa ko woo téléphone moom woowu ma bi mu toogee si télé bi ne maa ngi jéggalu Keba man maa jël sama téléphone maa ko woo téléphone félicité ko encouragé ko ne ko làmb yaakaar na ci yow si li nga nekk nii gën cee góor góorgóorlu ndax mën nga see ami immeuble mais ni ma ko ko yéenee noonu laa ko yéenee Jokal noonu laa ko yéenee Mama Lamine noonu laa ko yéenee Feu Rouge noonu laa ko yéenee Fëgala làmb Paul Maurice ak Jokal bëri nañ. tey jii moo indi Jokal keroog Papa Sow ak Modou Lo nañ te tey jii ñoom ñaar ñooy bokk entraînement yaa ngi dégg Boy Ngaay ak Sa Thiès bëri nañ te dem nañ ba bokk écurie il faut que aussi nit ñi ñu jël làmb teg ko ci cadre sport bàyyi wax bu ñaaw ndax contre performance fépp làmb am équipe nationale ñaata yoon la toog fii su demee ñu dóor ko ah yàgg na ren fi ko kenn yaakaarul la indi coupe mais loolay sport te ñëpp a génn tey di ko teeru promoteurs yi aussi nañ xam ne gis nga làmb ñaq jëriñu la xale yi nañ leen gën a jàppale man je pense que ni CNG il est temps mu jug taxaw taxawaayu kii yore làmb kilifa mais je ni ma gisee dafa mel ni maîtriser ñu sax liñ leen jox ndax il faut que ñoom ñu défendre mbër yi il faut ñu sécuriser mbër yi il faut aussi tey làmb su yàqoo mbër mi nga xamante ni moom moo gaañu il faut tey beneen mbër mi si cachet mbër mi gaañu ñu jël ko jox ko nampaay parce que dafa am ay cas de force majeure ya nga xamante ni sportif mënu koo bërewaale mais bu leen fàtte ni ki gaañu gaañu na day dem faju ji avec ses moyens ndax assurance couvriru ko mais ki nga xamante ni gaañuwul te mu jël temps préparé moom itam day dem continuer préparation am avec ses moyens te joxuñu ko. jërëjëf bi nga toogee ci kaw lan nga doon gis ci suuf loo xam ne dala doon déranger wala ci lan lañ la doon woo wala amul. non dama gis jokkel bu wéet dama gis jokkel bu néew doole. buñ doon néewal waaw dama gis ay champion ku mel ni Paul Maurice ma gis lu bari la nga xamante ni jarul jarut a évoqué parce que bëri nañ fi ak Rambo ñu téye ñu trois personnes ñoo ànd ak Jokal keroog mais Jokal dafa daan kon su daanoo du ñu taxaw ne looloo tax yaa ngi dégg moom moo def li ko daan ndax moom moo xeex xeex bu jaaduwut ndax dafa bëggoon a corriger Ada Fass mais moralement loolu aspect euh, sportif bi la mais moralement. il était atteint ndax maa ngi seetaan euh, ku ñuy wax Babacar bi xaw ma def diaspora mu ne Jokal soo ko xoolee da ngay xam ne am na stress si bopp bi avant combat bi mais parce que li mu jànkonteel la trois jours avant combat bi la commencé am ay problème problème yi problème dem ak manager am coow yi bëri diggante ay wax ay détails yi nga xamante ni bañ koy waxante nekkuñu woon ci télé moo tax da du ma ci sori ba jour combat bi te ñun on a la ñu bañoon yëpp dañ koo nangu Jokal su demee ba nangu bëreel combat spécial caatu yaraax ak bulldozer nga xam ne Jokal bëgg na bëre su ko neexoon mu yàq bés bi amee woon na la nga xamante ni mënoon na cee yàq bés bi mais defu ko dafa jël courage am ñëw bëri si ñaan yàlla ndam yàlla moo ko xañ ndam du promoteur du Ada Fass du Masamba du Kéba du Mademba du sëriñ bi ñaanal Ada Fass du sëriñ bi ñaanal kii yàlla moo xañ Jokal ndam. dernière décision. waaw moom moo yor dernière décision bi. kon il faut nit ñi ñu def loolu ci seen cadre waxtaan ne Jokal yàllaa ko xañ mais du ñàkk entraînement contre Maman Labi il n'était pas prêt mais il est venu. Mm. ñàkk combat bi. contre fëgg la li mu yaakaaroon ne moo baax ci préparation moom la def mais dafa ñëw ñàkk ko contre mamal euh, contre euh, Ada Fass il s'est amélioré ñàkk mais prochain ko mbaam su ñëwee li ko xañ loo yooyu dina ko jéem a changé waat ñëwaat c'est aussi simple que bonjour mais qu'on lui facilite la tâche ndax tey su ñëwee ànd ak tambour majoram amut benn benn site bu la mën a génneel tout su jokkel yow yor nga ko. Ah, wax naa la ma laa laaj yor nga ko yow. man dew ma woon. waaw mais mais bawal moo ngi foon. woon de. dañ ko génne. ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. donc kon je me dis que li ko war def na ko ndax amateurs yi la ñëwoon bàkkul li mu fay tëggkatam motul avance am li fay woykatam soo ko ci boolee motul avance am bus yu jógee Fatick ñëw soo ko ci boolee motul avance fan la ko jëlee te encore une fois autorité Fatick yi aussi nañ xoolaat seen bopp ndax su ñu yoree produit à l'intérieur au lieu ñu jàppale ko ñoom ñeneen nañu dem jàppale ji ñoom ñëpp nag laay wax kon su jokkeel daanoo ñu naan mbëru Fatick bi ay waay kii entraîné wul lan lañ bëgg. ñoom ñoo ko woo ne ko demal entraîné ji Modou Lo su bëggee préparé wu du tukki wala mu dem toog fii xool lu muy entraîné ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoom lan moo tax ñoom laaju ñu lu tax Jokal demul préparé wu ji moyens yi mu am si loolu lay liggéey day lekk day naan daa yor ay daa yor jabar yor famille yor ay rakk yaakaar ci ñoom day liggéey man damay liggéey askas néew gi may am maag ñi may àndal ñu jël ko di ko bokk ak moom c'est aussi simple que bonjour avenir am nag ci làmb ay atam ñëpp xam nañ ko dese na ko lu mu gàtt gàtt gàtt 15 ans ci làmb nit ñi ñooy naan mag la mag la daa teel a bëre Ada Fass d'ici 7 ans 8 ans ñu naan mag la parce que loi sport moo mel noonu ñoom Sénégalais lu bees rek lañ xam su beesee daal bees na ndax Jokal bi mu fi daan jiili mbay foofu la Ada Fass toll bi mu fi daan commissaire foofu la Ada Fass lan lañ doon wax. lañ ko doon taggee démb moom la ñu taggee ay moromam tey kon nañ doon xale bi ñi mu daan noonu lañ koy xale ba tey et pourtant day continuer di existe waaw moo ñëw rek. ana 500000. yan 500000. léegi léegi loo naa la may 500. teg ko si <laughs> table bi. leneen li si topp. Ah. nag maa moom dañu am contentieux jubóo nañu <laughs> parce que woo na ma baalu ma. léegi nag li ma bëgg mooy nga yóbbu ñu géej maak moom. sama doom la baal jàmm non non double mer la mer. <laughs> mu def ma lim may def ba pare wëlbatiku ñëw ndax jokkeel daan ko. noo <laughs> non dama ko bëgg a fayul. léegi nag Assane Ndiaye na tëgg ko mbaa boobu Assane. Ah. man ak Ada Fass yóbbu leen ñu géej ñu lijjanti wala ngeen xool Baye Fall mi ànd ak moom ngeen ngeen kii ma jéem a fayu si moom. <laughs> maa ngi koy nuyu Baye Fall nekk nit ku baax am na nit ku am respect. lamb la waaw lamb la di nuyu waa écurie Fass yëpp. ndax li ma leen wax rek ñoom maa ngi bi ñuy entraîné man. fa laa waaw Fass benn waaw la ñoom Fass bennoo la benn de rek Fass daal Fass la. waaw mais bennoo je sais yaa ngi dégg. Euh, di nuyu waa Médina yëpp. ndax rue 13 angle 12 la nan man man Saint-Pierre Julien Aymar laa jàngee ak Anne Marie Javet mook mook école Manguier ñoo taqaloo. Ah. falaa fooyee école Manguier boobu falaa fooyee kon donc il faut ma nuyu leen sant leen gërëm leen di nuyu waa Ngor aussi xam nga di nuyu lébu yëpp. sauf Père Ngagne Diagne Père Ngagne Diagne moom nuyuwuma ko. Ah, non dama ko mere trop. non te dinaa ko woo téléphone.